man xaw loo ci gis sëriñ bi sant na leen xanaa rek soññaat leen ngeen xam ni ku am sëriñ bu mel ni sëñ seex jàmbaar ju mel ni sëñ seex nga xam ni jamono jiñ toll ku mel ni moom amul fenn barke sëriñ Touba kooku ku koy liggéeyal ah di nga yokkat sa pësteef dama bëgg ñu xam ni bu sëñ Cheikh joxe te ndigal bu kenn des xam naa ni mbooloo mi. la fa dese ëpp lii kat gis ngeen li fi ne. foo jaar foo jaar foo sànni mbatt mu tak boo demoon ci jàkk bee ba gis ni fa taalibe yi sottee dugub ji ni ñu wëree jàkk bi jàkk bu ni toll nga xam ni kenn mësu koo gis ak mboolam mi ni ñu ko samee nun rek a war a sant nun rek a war a sant Sëriñ Tuubaa bu la bëggee ndamal da lay liggéeyloo sëñ seex danoo buggoon a sagal. daf noo bëggoon a ndamal daf noo bëggoon a yëkkati bañ tiim ñëpp moo tax mu jox ñu liggéey bi moo tax it nu ngeen ko gisee ñëpp a bég Saal sëñ Cheikh nan ko ñaanal mu yàgg fi te wér sant nañu ñëpp sëñ bi nee na sant na ñëpp bég na ci ñëpp te mi ngi leen di jox rendez-vous ci gàmmu gi.